voilà donc yegg si nañ ci Thioro mu mel ni euh, président Macky Sall moom nga koy doore waaw Khady comme ni nga ko waxee noonu njiitu réew mi Macky Sall lañ koy dooree moom euh, ginnaaw ba nga xam ne ne dafa daal di génn ci télé bi nga xam ne moom moo di TFM. am lu xam ne ni moom la fa wax dañuy daal di ànd ak Charles seetaan vidéo bi pour ñu mën ko commenter. dëkk ba njëgamaar doon bëgg am ay doon seen léegi nag nee na ñoom ñëpp seen réew mooy am ay faru mbër parce gis nga xat yi comme ni ñu ko wanee noonu ci vidéo bi moom njiitu réew mi loolu la daal di wax ni ñu ni mu ko waxee mooy rek euh, bu njëkkoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di xale jigéen yi ku ci nekk da nga doon taamu am li nga xam ne ni moom moo di copain boo xam ne nii ndax dañ koy daal di rafetal copain boo xam ne ni moom mooy di copain étudiant mais dès maintenant nag moom dafa gis ne copain mbër la la gars yi di bëgg di am ba mu ko defee ba mu ko waxee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes dañ kaa daal di partager fépp foo xool ci réseaux sociaux ndax li nga xam ne moom moo di vidéo mu ngi def la toile bu baax a baax ba ci ñenn ñi sax ñu ñu naan euh, moor toj toj waxati na parce que ñoom xam naa ne ñoom noonu lañu ko noonu lañ ko jàppee am na tam ñu ci wax naan ndax jiitu war naa toog di wax ay wax yu far ak ak ay copains ñoom seen am na tam ñu ci wax naan est-ce que amul loo xam ne nii moom moo gën a soxal askan bi lu weesu mu toog naan di wax ay waxi far wax yoo xam ne nii euh, ñëpp gis nañ ne vidéo bi dafa dafa wër tour du monde te di nga gis ñeneen ñu koy seetaan ñoo xam ne du ñu sénégalais te comme ñun ni ñu ci gisee suñu bopp ñeneen mën nañ cee ba ñeneen mën nañ cee gisee seen bopp noonee ba tax na tamit ñu bari ñu ngi koy lu tey wax ni moom njiitu réew mi Macky mu mënti nekk na xoolaat bu baax a baax li nga xam ne nii moom lay génne ci ay kàddu parce que ñoom it dañoo gis ne daal lii du ay du ay waxam te tamit mi ngi naan kon étudiants yi kon jamono jii nañu génn tamit ñoom ba tey jii daal di woote waat daal di def beneen beneen beneen publication parce que dafa mel ni dafa tuutal aussi tamit wax ni ba tey ni dafa nga xam ne ñoom ñoo di na tam dañuy wax ne ñoom est ce que mbër yi tam waruñoo wax ci lii ne ni moom la wax ñoom daal ñu ngi ñaawlu kàddu yi nga xam ne nii njiitu réew mi Macky Sall da ko génne ci gémmiñam bu baax a baax baax a baax te euh, ñoom li leen ci gën a déranger mooy waxu far bi mu wax mënoon na utiliser beneen terme boo xam ne ni du ay waxu far ay mën na mën na jël beneen beneen terme daal boo xam ne nii tey ji du nekk bu bu péjoratif comme ni mu ko waxee temps daal xaw xaw ma xaw ma lan moo ko dal à chaque fois bu waxee doo xam ndax da nga war a ree wala da da nga war a jooy ce qui est sûr c'est que war na xoolaat communication am bu baax vraiment vraiment xadi euh, dañuy daal di tëj paragraphe <laughs> dañu tëj boobu daal di ibbi beneen bi la yoon ba tey ci rakkam lañuy ñuy dañu koy wax Alioune Sall moo gën koo xam ne nag mu nekk maire Guédiawaye moom Alioune Sall gis nañu ne fan yi nii dañuy gis ñi nga xam ne ñoo di internautes ci di partage ay euh, kit ndogu lañ koy woowee yoo xam ne nii diwlin lay nekk gis nga comme ni ñu ko Charles wanee ci photo bi diwlin lay nekk sucre ak li nga xam ne moom moo di ceeb kaw li nga xam ne ni moom moo di euh, groupe kii yi euh, ni koy mandargaale dañ ciy def moom moom photoom maire ville bu mu nekk muy Géejawaay dañ ko ciy def mu def kit Ramadan 2018 def turam léegi nag lii nag ñi nga xam ne ñoo di internautes yi daal di partage te di ko ñaawlu ñaawlu bu baax a baax a baax a baax parce que ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne euh, néew gi doole yee tax mu def ko kon lan moo tax mu war cee def turam ak di wane ne moom day jàppale jàppale ay néew gi doole am na ñu ci wax tamit naan lii du rek guléet du rek tey lañ ko mës a gis lu mel nii Aliou Sall di ko def wala keneen ku nekk ci nguur nguur gi nii di ko def donc ñoom ñu ngi koy lu ba seen ñaaw lu yam te it ñu ngi wax naan bu fekkente ne néew gi doole la koy jox néew gi doole bu mu leen jaral ñuy jël Euh, loo xam ne ni tey jii nit ki da koo def pour wane boppam ñoom ñu koy jël ñu leen koy saraxaat ñu koy ñu koy lekk donc dootul saraxe te dootul maye aussi dootul tam jàppale ñoom noonu lañu noonu la ñu ko gisee am tam ñu ci wax naan euh, suukar ak ceeb ak dëwlin jamono jii ku sàll la sant ku leen bañ sax bañ amaana doo ko lekk wala doo ko bari la sa biir kër te ku ne xam ne dund ni mu mel ci ci ci doomu aadama yi am na tam ñu ci wax naan Euh, moom li mu def moom loolu la tollool loolu la tollool donc ku kuñ ko ci jox naka nga li nga xam ne ni moom la taf daal di lekk ba suur naan ba maan parce que tamit nee nañ sunu alal rek lay la ñuy joxaat donc ñoom daal noonu la ñu ko commenté ñoom ñi nga xam ne ñoo di internet yi te li ci gën a garaaw aussi xadi ba tey ci commentaire yi am na ñu ciy wax naan euh, xanaa gisuñu waa APR ci boppam ndogu yi nga xam ne fan yi ñu ngi koy def ci biir banlieue bi mooy ndogu la ndogu de l'émergence yi mhm. nga xam ne ñu ngi koy def fan yi ci biir banlieue bi parce que neena na commune boo dugg dañuy jël benn 1 million daal di ko fay tas bu ñu jëlee 1 million bi daal di koy tas jëndee ko denrée nee fu ñu ne foofu la ñuy daje tey jii da ngay gis commune bi ñëppay naan kërëb ne këpp ci biir foofu ñu koy joxee ban ñii di ci di ci di ci gaañu ñii di ci di ci di ci blessé ñii di ci di ci kaw ci kaw xëccoo boobu ñu koy xëccoo te nee na 1 million boo ko jëlee jëndee ko denrée nee na ak commune yi nga xam ne ni ak ni ñuy mel ak nit ni ñuy mel ay kër ni ñu mel ak ay famille Euh, la nga leen di jox du leen doy benn peeru doy boo xam ne nii euh, day mel ni comme si ñoom dañ leen a yab daal yëpp leen moo tax tey jii ñuy ñuy jël loolu di ko fa indi ba di leen ko séddale ba tax na ñoom tamit ñu ngi ñu ngi sensibiliser sax nit ñi ci biir commentaire yi naan bu ñu wooteetee bu kenn wuy ji bu ñu wooteetee bu kenn wuy ji parce que yëpp leen mënu wees loolu te boo fa demee benn paquet suukar nga fay am wala benn kilo ceeb loolu boo ci toggee benn jour wala nga utiliser ko benn jour après boo paree pare nga ci donc jarul xeex ak xuloo dem di ñuy woote nga koy jëli ji en fait dañuy dem ci nit yoo xam ne ils ont nos besoins. Mm. moo tax peut bu leen jaralee buuxante et cetera sax mais dinañu ko def. Mm. ñoom kay ñoo war a am maturité xam na ki euh, joxe yëfu weeru koor wala def rek te yàlla tax moom moo la tax a jóg soxla woo boucon boobu yëpp mm. en plus de ça nga jëlaat xaalis dugalaat ko ci lu luy luñ ci luñ la fiy defalee sa nataal ak bind ci ndogu de tel et de tel mel ni que yow suukar bi ñu bind sa tur dafa am euh, saveur bu Euh, bokkul ak beneen bi ñu bindul turu jàmbur ji wala boo ko defalee defee sa meew boo ko naanee da ngay joon doy na mm-hmm. ko muy lu doy waar dañuy daal tëj paragraphe boobu xat yi ibbi beneen bi la yoon dañuy dem ñaari tali ñaari tali nag ñi nga xam ne ñoo di population bi askan ba dañoo génn wàcc ci mbedd yi fan yii nii gis nañu vidéo yi mu ngi dox mu ngi daw baax ci euh, ci biir toile bi ba ñoom euh, ñàkkum ndox mi lañuy lañuy la ñuy jàmbat ñàkkum ndox mi moo waral a seen ndoxu ñaxtu bi parce que jamono ji nee nañ lu mat weer a ngi seen robinet yi xelliwul ba tax na bala ñoo am ndox daal dañuy wëri fu ne dañuy daal di ànd ak Charles xool vidéo bi ñëwaat Khady gis nga comme noonu ñu ko wanee noonu ci fi nga xam ne moom moo di ci euh, vidéo bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di population bi dañoo génn wàcc ci euh, kaw loolu tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi daal dinañu koy euh, commenté ci kaw di wax ne rek am na ku ciy wax naan moom ba mu fa jógee ak léegi ñaari fan la am dafa demoon seeti maamam waaye ba mu fa demee looloo ko fa dàqee ndax dafa yenu paan yenu paan ba sonn te distance bi mu koy yenoo delluwaat fa nga xam ne ni fa la fa la nekkoon moom boobu la témoignage la def ñi ci des am na ñoo xam ne nii ñu ngi naan wax ci lii le président war a def moo gën muy wax ay kasaw kasaw parce que tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanam ñoom ñoo sonn ci li nga xam ne ni moom moo di ñàkkum ndox te it day bu ñu fàtte nee na ne SDE ak la mu waxoon ci ci wàllum coupure bi dafa daal di ute torop ndaxte am na ko ci wax naan euh, ñoom dañoo mën a rek ñaxtu ak di wax ñu leen di dégg parce que biir Dakar lañu nekk mais nee na boo demee fu mel ni Kidira ak biir Tambacounda ci biir a biir a biir ak dëkk yoo xam ne nii mu ngi fii biir Sénégal te askan ba fa nekk ay deux mois la ñuy toog trois mois du ñu gis ndox wala bu la ñu koo gis xaar nelaw donc euh, nee na kon président war naa mën a mën a wax ci leneen loo xam ne ni moo gën a soxal nit ñi comme lu mel ni ndox meeg yooyu moo gën muy wax ci leneen loo xam ne ni ay kasaw kasaw la am na tam ñu ciy wax naan Euh, moom président Macky Sall mënu sax joxe ndox ndox bu doy ci fi nga xam ne moom moo di ci biir réew mi waxuma laa nag mu naan day defar li nga xam ne moom moo di projet teer bi ci 1000 milliards neena na loolu soxalul askan bi amalul askan bi benn njariñ te ñu ngi fay dugal xaalis boo xam ne ni tey jii buñ amaana buñ ko dugalee ci ndox wala ci ci ci courant wala ci loolu amaana askan bi dinañ ci gis seen bopp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni mu ngi koy tabax ci biir réew mi te fekk na askanam moom ñu ngi soxla ndox bi nga xam ne nit mënu koo ñàkk ci dundam am na tam ñu ci wax naan pourtant dañu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di SDE ñoom ñoo remporté euh, le prix de la société d'eau ñoom euh, ci ci année bi ñoom nag ñu ngi ñaawlu bu baax a baax ki nga xam ne moom moo leen ko jox ak jagleel bi ñu leen jagleel prix boobu parce que nee na ñoom nekk nit ñi di ñàkk ndox euh, jour bi ba ca ba ca beneen jour ba ñoom ñu toog di leen déje ay prix yoo xam ne ni tey jii mérito wuñ ko donc ñoom internet yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax baax a baax tey wax ni loolu warul te bala ñuy jox kenn prix te fekk na dafa soxal askan bi nañu saytu askan bi lan moo ci seen dégg-dégg wala lan moo ci seen bëgg-bëgg ba pare ñu soog leen di déje ay prix wala leen loo xam ne ñu ngi leen koy jox métti na daal. xëy na waar parce que tam ndox mu nekk loo xamante ni nit mënu ko nit mënu ko nit mënu ko ñàkk. Mhm. donc nekk na loo xam ne te man li sax man kay doo gis le fait que ay jigéen taxaw nii di. ak yooyu donte amoon na fi mais comme ni ñu génnee nii baaree talibe et tout maa ngi koy doo gis mm. mais quand même boo xoolee sa bopp rek nga xam ne ndox nekk na loo xamante ni jour da nga koy soxla te looy def aussi da koy utiliser mm. donc war leen jàppale aussi 4 jours la ñu waxoon xaw ma 5 jours ba 1 mois tamit loolu tamit nekkul respect mm. également dañu war a génn wax nit ci fan la ñu féete bu fekkente parewul ñu joxaat leen beneen délai mais moo gën ñu leen wax naan peut-être benn précision bi mooy par rapport prix bi ngay am na ñoo xam ne dañuy def sax mhm. euh, par rapport qualité de l'eau la donc prix absolument rien à ak li nga xam moom mooy euh, qualité ndox bi nga xamante ne ñenn ñi yi ñu ngi koy wax donc mhm. ñëpp xam nañ ne qualité ndoxu Sénégal bi ça laisse à désirer mhm. am na ñoo xam ne seen kër boo fa demee ay kireen nga fekk wala ñu jël bouteille bu mag bi def ci benn euh, benn genre pompe boo xam ne ci la naanee parce que ndox bi qualité bi ça laisse a xamee boo ko boo ko rootee nga teg ko ci sio benn instant après da ngay gis tamit beneen beneen précision la leneen li ñu mën a dimbali population bi tamit mooy yu mel ni bu amatee secteur boo xam ne comme ñaar tali doon ñaxtoo au moins ñu avertir leen à l'avance ñoom jël mën a jël mais aussi ñu yóbbu leen ay si camion citerne mm. yoo xamante ni dinañ leen mën a taxaw parce que weeru koor gi tam nga boole kook ñàkkum ndox dafa nekk loo xam ne day day métti lool parfois ndox boo jàppee sax doo ko am c'est vraiment terrible quoi ñu bañ ko privé population parce que woor war a jàpp war a julli war a naafi la wala togg wara def yeneen ak yeneen amoon ndox nekk na loo xam ne lu metti la quand waaw ba tey xar yi dañuy daal di rek tëj paragraphe boobu ubbi beneen bi la yoon dañuy wax ci ki nga xam ne moom moo di Birima Birima Ndiaye moom mu nekk chroniqueur fële nga xam ne moo di ca TFM mais ñu gën koo xam mu bokk ci direction bi nga xam ne moom moo nekk CROUS CROUS fële ca Sanaar di université Gaston Berger moom mi nga xam ne ni moom moo di Birima Ndiaye nag dafa am vidéo boo xam ne nit ki barki démb ak démb ak tey yëpp mi ngi daw fi nga xam ne moo di ci ci réseaux sociaux yi bu baax a baax a baax dañu ànd ak Charles mën a seetaan vidéo bi

xat yi gis nga ni ci vidéo bi nit ñu ko wanee mu mel ni Euh, ba réunion moo amoon foofee ca Crous ca bi nga xam ne ni moom Birima Ndiaye dafa am lu mu doon ci direction bi moom nag Birima bi mbir mi amee dafa jël par dafa jël kaddu bi mu jëlee kaddu nag dafa wax wax yoo xam ne tegginuwul benn yoon ba wax ji sax jur coow ba tas réunion bi ba gis nga ni mu ni mu mujjee demee ba nit ñi di xeexoo ci biir waaye dégg nañ tamit euh, saaga yi nga xam ne tam daan na koy génne ci ci gémmiñam moom Birima te moom moo daal di dóorloo moom moo njëkk a euh, commencé xeex bi ndax moom moo nekkat kat nañu am ku ñu dóor foofu ci biir lii bi te wax na ko publiquement ñëpp dégg ko bi mu ko defee nag li nga xam ne moom moo di vidéo bi ñi nga xam ne ñoo di internet yi daal nañ koy partage bu baax ci toile bi waaye commentaire yi euh, moom moo ci gën a gën a a sax choquant parce que nit ñi ni ñu ko commenté mooy moom mbiri ma dafa la parce que yëf yëf sauvage rek la la la def actuellement ci ci ci ni nga xam ne nii noonu la ko defee am na tam ñu ci wax naan euh, université nga xam ne ni tey ji borom xam-xam moo fa war a nekk koo xam ne ni tey ji dangaa war a doon ku ñuy respecté ci biir réew mi nee ni tey jii tekkiwu dara ci biir réew mi di fa nekk waxuma laa nag mu fay jiite dara ba réunion am ba war a ba wax sax mu war a wane manque d'éducation bi nga xam ne ni moom la moom la def nii ci kanamu nit ñi am na tam ñu ci wax naan euh, mag mu tegginuwul la moom ma ku tegginuwul la te it dafa dafa nañ ko nañ ko nañ ko daal di jël ber ko parce que ber ko mooy buñ ko booleet ci dara loo xam ne ni tam day bokk ci biir réew mi parce que dañoo soxla ñoo xam ne nii seen compétence du ay compétence yi nga xam ne ni moom la moom la birima di wane ak yeneen xeetu yoo xam ne ni tey ji mu ngi koy def te sax du publiquement parce que am na ci ñu ñu bëri ñoo xam ne nii ci biir ci biir euh, commentaire yi ñu ngi wax naan ku ci nekk naan xamal naa ko lii ku ci nekk naan ko xamal naa ko xamal naa ko lii mais daal boo dee xool commentaire yi nit ñi xol nañ doon waxee ak mere ki nga xam ne moom moo di moom moo di birima am na tam ñu ciy génnewaat yeneen vidéo yoo xam ne nii daf cee taxaw di wax di wax naan nañu nañu ah, faat sax ay ay étudiants te alors que moom moo fi toogoon fan yee passé di wa di di di dànkaafu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk université euh, Gaston Berger ak di wax ni dafa daal di rus ci li nga xam ne ni moom moo di moom moo dal Serigne Fallou Serigne Fallou bi nga moom lañ ko faat fan passé ginnaaw loolu génnee lañ ko beneen vidéo boo ne dafa toog di di wax ni euh, benn étudiant du leen yéeg ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite foofu ba étudiant bu leen mën a mën a bu fi bëgg a teggi yoon rek dañ lay daal teg ci yoon nee na ci ba faat sax li nga xam ne moom moo di étudiant wax na ko ci ay vidéo yoo xam ne partagé ne moom moo di ci commentaire yi am na tam ñu ci wax naan soo dee xool moom waayu ki nga xam ne ni moo di njiitu réew mi la copain Macky Sall la donc looloo tax moom tamit mu sañ a def yenn yi te it li mu def nii sax nee nañ bu moytul dara du ko ci fekk dina ko rombaat ci ci jàmm ak salaam te it am na ñu ci wax naan coow bii la bëgg lii ñu ko ciy wax nii loolu la bëgg tax bu toogee bañ nañ ko ba toogee ci ci télé boobu nga xam ne nii fa lay fa lay nekk ci yenn kii yi mu fay def day day waxee nu ko neexee te it sénégalais duñ ci àdduwaat duñ ko jubbanti duñ ko def dara donc liñ ko may boobu ba léegi moom moo ëpp ba tax mu egsi ba fii te lu ñu war a wax la moom mu bàyyi ko moom birima doy na wax dafa koo xamante ni yow da ngay ne wax moom mooy sa métier donc war ngaa jàng wax ba nga xamante ni boo waxee fitna bu jóg mm-hmm. voilà et c'est pas du du en tout cas lii la nit yi di di xaar ci moom irresponsabilité moom la wane et puis le fait je pense que muy mu naan que euh, dañu war a faat bakkanu étudiant bu fekkee dafa def lii wala laa mm-hmm. loolu Pape Ndiaye du apologie crime wala boobu parce que loolu moom si que yéen a ngi fàttaliku le jeune Bada Fall lu mel noonu lañ ko fi teewoon mooy mhm. apologie du crime maanaam mhm. di di di loo xamante yoon daf koy tere loolu moom c'est des mhm. propos extrêmement graves yoo xamante euh, yaakaar naa ne jar nañu jël ay les mesures qui s'imposent pour que pour mën ko mën ko kii euh, mesure tant au niveau national wala tamit fi nga xam moom ci boppam ñooñu jël parce que am na ci ay mbir yoo xamante ne euh, day ternir li nga xamante ne moom mooy image entreprise bi donc yooyu moom c'est des propos irresponsables te président euh, ami euh, du président ou pas nul n'est au-dessus de la loi. même le président de la république n'est pas au-dessus de la loi. du lu ko neex lay def. donc loolu moom ça ne veut absolument ah, rien dire quoi. dañuy daal di tëj boobu daal di wax ci leneen ba tey xali waaye ci tey faible la ñuy desandi. ndax TFM ñi nga xam ni comme xam nañ ne TFM ñoom ñoom ñoo wane war wane li nga xam ne ni bokk ko ak waa RTS nga xam ne moom moo di coupe du monde 2018 bi ca ñoo di internautes yi dañu koo daal di partagé ko comme ñii ko Charles wane daal di xamle ni lan moo tax ñuy bàyyi ñi nga xam ne ñoo di TFM ñoom ñuy diffusé li nga xam ne ne moo di match coupe du monde yi am ñu ci ci biir commentaire yi am na tam ñu ci wax naan bu may tuulee waxuma la match waaye potu corner rek duñ ko gis parce que TFM moom mëneewul foofu am na tam ñu ci wax naan TFM ñoom buñ leen yàpp que amuñu ay reporter yoo xam ne tey ji war nañoo mën a reporter match am ñoo xam ne nii war nañoo mën a xam tey ji football carrément ba war a mën a reporter match ba nit ñi war leen a mën a seetaan ba di fa bàyyi jël seen temps am na tam ñu ciy wax naan dara waral ko lu dul lu dul koom wàllum alal rek moo ko waral parce que euh, dañuy daal di dàkk ji ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, ñoom ñooy euh, sponsor yi looloo war a tax tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di TFM daal jël li nga xam ne ni moom moo di coupe du monde pour bëgg koo diffuser parce que xam nañ ne ñoom bu ñu nee dañ koy diffuser rek ñi nga xam ne ñoo di utali si donc ñoom euh, internet ñu ngi leen di dénk que ni même su fekkete ne xaalis dañ ci jublu pour ut ko ci sax pour def seen gafaka nañu daal di euh, séddale loo xam ne tam nañ wane loo xam ne nii dina mën a neex askan wi te tamit dina arranger askan bi bu baax a baax a baax am na tam ñu ciy wax naan ñoom xëccoo rek lañu la la ñu mën parce que xam nañ ne te euh, ñi nga xam ne ñoo di RTS ñoom ñoo koy wane te RTS comme da koy xañ ñenn ñi des fois da koy xañ ñenn ñi looloo tax ñoom tam ñu def seen kéem tolluwaay kattan pour mën a wane li nga xam ne ni moom moo di coupe du monde bi waaye daal lañ leen di dénk mooy rek même xëccoo nañ ko ba am ko waaye tamit nañ ko def ba mu baax buñu leen rusloo te ñi ko ci wax nag ñu ci bari ay fans TFM ci boppam lañu parce que ñoom ñoo ñoom ñoo waxee noonu te ñoom ñoo ñoom ñoo dànkaafu am na tam ñu ciy wax naan euh, coupe du monde bi euh, RTS rek la waroon bàyyi mu mu wane ko parce que su fekkente ne tam TFM da kaa wane yeneen télé ngi fii télé privé yoo xam ne ni ñu ngi biir Sénégal te laalu laaluñu ci nguur bokkewuñ ci nguur te wanewuñ ko loolu day mel ni séddale bu bu am par par loola donc waruñu woon a bàyyi xaw ma ñan ñoo ko def mais waruñu woon bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo di TFM ñu daal di diffuser li nga xam ne ni moo moo di match yi waaye yaakaar naa ne xadi am nañ a baax pour pour diffuser match yi ñoom am nañ